mais ba tey ñoo ngi tax élection présidentielle. bon ñu ñu def seen seen rôle en tan que conseil en tant que mandataire. Mhm. en tant que des avocats ils étaient en bon droit de d'introduire un recours. Mhm. loolu ñu defoon nag mais ça n'a pas abouti. Mhm. voilà mais kon kon mën nañu jàpp ne daal ñoom bu ñu dugaloon comme comme motif loolu dañ ko rejeté. pour validation candidature Ousmane Sonko. exactement dans un premier temps mooy le défaut de parrainage. Mhm. d'après ñoom lu ñuy constater ak euh, ak des pièces qui parce qu'il y a des pièces qu'on appelle les pièces matérielles. exactement. bon si de ces pièces-là manque bon candidature la candidature ne sera pas retenue ça exactement Bassirou Diomaye daal di euh, bokk si ñu euh, jàmm élection présidentielle 2024 yi ñu daal di dëgmal moom actuellement caabi féetee na ko ginnaaw est-ce que obligatoirement dafa war génn kaso laataa nuy amal li nga xam ne nag moo di campagne électorale yi. il est plus considéré comme étant détenu pour bon au sens propre du terme. exactement. autrement dit mu nañ comme étant en prison mais amagul benn euh, décision de justice condamné. Mhm. il est entre les liens de la détention mais amagul benn jugement bu koy condamné. Mhm. loolu moo tax moom sa candidature a été retenue parce que y' a pas une décision de justice qui a été en son encontre. Mhm. amul benn condamnation bu muy souffrir donc mën nañu jàpp ne kii am euh, son casier judiciaire est vierge. loolu moo tax sa candidature ne souffre aucune irrégularité. raison pour laquelle la, le conseil l'a retenu. Mmh. comme étant candidat. exactement mais loolu ko dans donc il va falloir qu'un procès mhm. euh, soit euh, euh, mis, à, mis, mis du jour mhm. jusqu'à ce qu'il sera élargi par une décision mhm. de justice. moom le fait que mu candidat nag mu jox ko immunité. parce que il est tout simplement candidat en attendant c'est que ce qu'il soit élu à partir moment où il sera élu il sera revêtu de l'immunité présidentielle à de ce moment mënatuñ ko topp ci yoon parce que day am immunité. bu koy bu koy protéger. exactement. voilà si nekk nag jàllul nag. Mhm. Euh, comme président. Mhm. bon mënuñ def procès bi toujours. Mhm. à de ce moment moom procès aussi mën na ko mën na ko blanchir. parce il a poursuivi pour euh, une infraction. et infraction ku ne xam ne pour nga condamner condamner il faut la réunion de tous de, de éléments. de façon cumulative. élément moral élément légal ak élément élément. élément moral élément légal. Mhm. là-bas matériel. Exactement. Euh, ce qui sera à mon sens euh, très difficile pour ñu prouver ko. Mhm. Mais euh, tout, est-il que am aussi euh, procès. Mhm. cas où président mais à partir du moment où candidat Birame hmm. les membres de son parti ou ses sympathisants ils peuvent battre campagne en son nom hmm. mun na gagné nag mun na gagné naam su gagné à partir de ce moment il sera élargi hmm. libre euh, de de sa propre euh, exactement exactement kon mën nañ jàpp ni fii ak élection présidentielle 2000 yi ñu daa dëgmal 2024 yi ñu daa dëgmal candidature Bassirou Diomaye amul benn euh, ndëgg sërëx boo xam ne mi ngi si lu ci lu muy souffrir à part à part son son ensemble parce qu'il ne pas bénéficier par exemple euh, à partir du moment parce que eh, à Canada à partir de là da leen jox ce qu'on temps d'antenne. ñu war a euh, partage au niveau de la télévision nationale. moom en propre ku mu def. exactement. que bon c'est pas parce qu'il est candidat on va euh, le prendre en pigeon pour mu def euh, de son de son temps son temps mhm. et le temps d'antenne là est un élément de la campagne électorale. Mm -hmm. leneen il ne pas descendre sur le terrain pour mu mën a battre campagne. Mhm. parce que amagul euh, il ne jouit pas de cette liberté là. Mhm. donc loolu nag mooy nekk un peu de obstacle mooy nekk ay obstacle yoo xam ne dina euh, euh, dina ko xaw a mhm. euh, connaître ci candidature mais à partir de là mooy candidature moom na. Hmm. ñi mu àndal ci politique moom mun nañu mun nañu continuer def combat bi. exactement si pour euh, avoir euh, gain de cause mun na am hmm. bi nga xam ni bëgg naa nga indi nu si ab leeral mooy candidature ki nga xam ni moo di Khalifa Abacar Sall moom aussi jot na daal di valider candidature te moom Khalifa Abacar Sall boo fàttali ko jamono yi ci ginnaaw euh, amoon na benn amende boo xam ni war na ko jox lii di état du Sénégal loolu tey jii lan mooy justifier nu daal di valider te moom xam na ni carrément amende boobu mu ngi si noddam ba léegi. bon certainement il a il a payé il a payé il a payé il a désintéressé les autorités ci euh, euh, autorités yi moom ñoo xam ne ñoo ko doon toppee mhm. parce que am na ci élément matériel li ñuy wax le quitus fiscal. Mhm. ça veut dire que doo waroo waroo des ak euh, Sénégal benn dërëm boo xam ne la koy toppee. Mhm. su nekkee ne validé nañ candidature am bon on sous-entend que réglé na loolu. Mhm. waaw loolu la loolu la ñu ci mën a tirer comme conclusion. Mhm. parce que su nekkee ne fayal ko loolu mun a nekk un motif de rejet. de sa candidature. exactement à partir du sa candidature est maintenue. mun nañ ci euh, tirer conclusion comme ne moom moom acquitté na à des droits. Euh, bon diggante moom ak état du Sénégal li mel effectivement jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci intervention bi nga xam ni def nga ko alors tey jii la mooy sa mot de la fin. waaw di leen di remercier di gërëm waa Dakar euh, waay Dakar. Dakar 225. Dakar 221. on déglu seen liggéey on oh, di leen aussi ñaanal ngeen dem ci kam kaw ci kanam. amin jërëjëf di la jaajëfal bu baax a baax Lamine nekk juriste gis ngeen question yi nga xam ni euh, daal na si indi leeral ñeel li nga xam ni moo di candidature Bassirou Diomaye Faye ak ki nga xam ni euh, moom mooy Karim Meïssa Wade moom nag jàpp na ni rejet boobu euh, nu am ci candidature kii di Karim Meïssa Wade dañ ko daal di teg ci li nga xam ne nag moom moo di yoon ndax moom Karim Meïssa Wade amaan bu muy daal di renoncer lii di nationalité française am boobu jot na daal di déposer dossier am fii ci conseil constitutionnel alors tey jii euh, gis ngeen li nga xam ni moonu boole woon fii ci conseil euh, constitutionnel ñu daal di xaarandi rek ana ban décision mooy daal di bàyyeekoo ci kii di Bassirou Diomaye Faye actuellement moom caabi daf ko fayte ginnaaw ginnaaw bu nu sukkandikoo si euh, sunu naataango bi mu ngi wax ni ginnaaw bu mu sukkandikoo ci L117 bu code électoral de l'ouverture officielle de la campagne électorale jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin aucun résultat ne détenus ou jugés pour des propos euh, tenus jërëjëf ba tey ñu wax leen li nga xam ne moom lañ fi jëlee ki nga xam ne mooy mën nañu wax ne défi bi euh, taf nañ ko jamono bi nga xam ne. des propos tenus ou des actes commis durant cette période qui se rattachent directement à la compétition cela dit que Bassirou Diomaye Faye est poursuivi pour des infractions non commises durant la période prévue par le code électoral conséquemment il reste en prison sauf si l'administration judiciaire lui accorde une liberté provisoire donc euh, mi ngi noonu. Euh, si candidature ki nga xam ni moom mooy euh, Bassirou euh, Diomaye Faye mën nañ jàpp ni moom mën na daal di desandi fële ca prison ba sauf li nga xam ni moo di administration bi daal di koy libéré naka loole aussi loolu amul lenn lu mën a entravé ci li nga xam ni moom mooy moom mooy candidature am naka noonu aussi gis ngeen ci tableau bi ñu ngi noonu jot nañu affiché li nga xam ni moom mooy décision bi daal di rot tey ji fii ci conseil constitutionnel ñeel li nga xam ni moo di candidat yu war a participer si élection présidentielle 2024 yi euh, Boubacar Camara la Cheikh Tidiane Dieye Déthié Fall Daouda Ndiaye Habib Sy Khalifa Ababacar Sall Anta Babacar Ngom Amadou Ba Rose Wardini Idrissa Seck Alioune Mamadou Dia Serigne Mboup Pape Djibril Fall Mamadou Lamine Diallo Mohamed Boun Abdallah Dionne El Hadj Malick Gakou Ali Nguy Ndiaye El Hadj Mamadou Diaw Bassirou Diomaye Faye Thierno Alassane Sall ñooñu nag ñooy daal di euh, jongante si élection présidentielle 2024 yi nuy daal di dëgmal ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko recours bu mu jotoon dugal doon daal di déclaré irrecevable de aussi ki nga xam ni euh, moom mooy euh, Karim Meïssa Wade naka noonu aussi euh, gis ngeen collectif bi nga xam ni amoon na lu toll ci 41 candidats mënal si cité ki nga xam ni moom mooy Thione Niang Assane Ka Souleymane Ndéné Ndiaye Aminata Touré Alpha Thiam Amadou El Hadj Abdourahmane Diouf Mohamed Fadel Koné Ibrahima Sissoko Moussa Diop Amsatou Sow Sidibé Aïssatou Mbocc ñoom aussi recours bi nga xam ne na ko dugal ngir nu amal li nga xam ni moom mooy benn révision ñeel si li nga xam nag moo di processus électoral bi ñoom ñooñee recours bi nga xam ne jotoon ko dugal ñoom aussi dañ leen daal di la seen discours seen recours boobu donc luñ si mën a jàpp rek ci li nga xam ne moom mooy élection présidentielle 2024 yi loolu rek li euh, nga xam ni rek moom lañ si mën a jàpp actuellement euh, mooy ñi nga xam ni euh, moom mooy vingt personnes yi nga xam ni ñoom lañ daat génnee seen liste fii léegi-léegi ci conseil constitutionnel naka noonu aussi di jaajëfal bu baax a baax mbokk internet 313 digital depuis si suba ba léegi yéen a ngi ñu toppoon ci direct bi nga xam ne ñu ngi fii ci conseil constitutionnel ñeel li nga xam ni moom mooy candidat yu war a participer si élection présidentielle gis ngeen au rëkkale muy di euh, Karima Meïssa Wade recours bi nga xam ne Ousmane Sonko dugaloon na ko euh, moom euh, kii di moom dina bokk si jongante bi Déthié Fall ki dina si daal di bokk waaye aussi Cheikh Tidiane Dièye nag noonee aussi dina si daal di bokk alors tey jii nuy xaaran rek Bassirou Diomaye Faye ak organisation bi ñeel li nga xam ni moom mooy wàllum campagne bi est-ce que daf koy daal di ci biir prison wala dañ koy daal di libéré kanam tuuti rek boon toppee digital di ngeen am lu leer leer di leen jaajëfal bu baax baax mbokk internet yi di jaajëfal aussi Aïdara mi nga xam ne moom la àndaloon si terrain bi ak bépp équipe technique digital di leen jaajëfal bu baax baax di leen kanam tuuti ak yeneen information jërë ngeen jëf wala di suivre digital la coalition nga xam ne euh, tendant à remettre en cause leurs candidatures sont irrecevables